gannaaw nuyoo ak sant yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne collectif bi mu ngi koy sàkku bi ci njëkk ci gouvernement bi la ko jëmale mu ne awalan nad'u alxukumata ila muaqabati almujrimina li wadi xaddin min hadihi altasarufat almuhina والاخلاقيه التي تسعى الى تعطيل القوى الحيه للامه السنغاليه wa inna dalika min lubbi awlawiyaati alxukuma kama annana nutaalibu bi dustuurin mulaa'imin maa qiyamina wa muctaqadatina addiiniya boobu mooy premier li nga xam ne mouvement bi mbooloo mi ñu ngi koy sàkku ñu ngi woo gouvernement wu senegal mu jël ay sanctions teg ko ci képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf yu ñaaw yi wala yaa ngi jëf-jëfu mbon gi yooyu nag bi ci gën a fés mooy doyadal bi ñu doyadal alquranul karim xale boobu dëgg kaamil bi yéen ñëpp gis ngeen ko yooyu il faut ñu wutal ko ay sanction affaire ngóor jigéen gi il faut ñu wutal ko ay sanction beneen bi kii nga xam ne dafa saaga mboolem imaamu Sénégal yi saaga mbooleem muqaddam yi yu mel noonu faw ñu teg leen ay sanction beneen bi ñu ngi koy jëmale ci mboolem organisation yi ñu ne nu diinu bi shidda خمول المؤسسات وتواطؤها مع القوى الظلامية التي تروج أجنداتها الرامية إلى تفكيك المجتمع وزرع الفساد والهلاك داخله mboolem organisation yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di liggéey ci réew mi di indi di dooleel lëndëm di dooleel mbon gi ñooñ kuréel gi mu ngi condamné association yooyu association góor jigéen yi association franc-maçon yi association yi nga xam ne dañu yor ay financement yu jógee bitim réew yoo xam ne dara taxu leen jóg lu dul yàq société bi yàq suñu jikko yàq suñuy aada ñu ngi koy condamné bu baax beneen bi ñu ngi koy jëmale ci waaw salisan wala الصحافة نذكر رجال الصحافة والقائمين عليها بواجبهم الوطني في الدفاع عن الأخلاق الحميدة وحماية المجتمع وأن لا يمهدوا الطريق لهؤلاء الخبثاء الذين يهدفون تدمير الأسس والمرتكزات الأخلاقية للمجتمع السنغالي ñu ngi woo média bi mu jël ay matukaayam ci xool li nga xam ne mooy jàll ci ay programme am lépp loo xam ne day yàq suñu jikkoo wala lépp loo xam ne day yàq suñu aada bu ñu participer ci yombalal ko ñi nga xam ne ay nit ñu bon lañu li xew yëpp tey li ko indi du dara lu dul média yu bon média yoo xamante ne ni lu ci ëpp ci ñoom dañuy yàq fàttewuliku leen bu baax a baax a baax Goebbels li mu waxoon Hitler daf na ko woon atini i'laman bila wa'yin i'laman bila damir antika shaaban bila waay yi ilaam bila damir li muy def intaaj mooy shaabu bila waay yi jox ma média boo xam ne amul conscience amul jikko dinaa la jox population boo xam ne amul conscience tey ñu baree bari ci média yi moo xam réseau sociaux yi la seen xaalis la ñuy xool nu ñuy amee mais xooluñu liy yàqu ci diine ji xooluñu liy yàqu ci aada yi la preuve weeru koor yi bu jotee yéen ñëpp yéen a ngi gis série yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci ndogu yeeg ci reetaan yi loo xool ñu ngi saboté daara ñu ngi saboté sëriñ daara ñu ngi saboté te loolu ci télé yi lañ koy teg bi ci mujj bërki dem boo njaay mooy ñu doon yàq deru daara wane sëriñ daara boo xam ne dafay jaay yàmba te loolu existé wul ci Sénégal beneen bi mooy ñu ngi woo ndaw ñi mooy juróomeelu point bi nu xassisuha li shababi hadihi al umma wa ramzu mustaqbaliha wa xattu difaaciha al amaami li naquula lahum intabihu nee na bii ndaw yi la ñuy waxal yéen ndaw ñi na ngeen yeewu na ngeen yeewu hunaaka man yatarabbasu bikum wa yuridu an yudammira fiikum